soog a yeewu ni non yaay man yeewu naa bu yàgg dama tëddoon ci biir doon wuyu téléphone rek tëdd ci biir rek yow daal pour nga génn sax problème la ah patron nga de danga may wan ne boos nga waaye yow démb ci guddi dafa mel ni bi ma tëddee dama dégg bunt kër gi muy yëngatu ah oui xam nga dama yeewu doon xool kër gi ma gis ni tëjuñu bunt bi ma ni naa ko tëj loolu kese la man avant may tëdd man maa ñëw tëj buntu kër gi rocc sama caabi. yaay xanaa déggoo li ma la wax man maa yeewu tëj buntu kër gi moo tax nga dégg bruit bi loolu kese la. Atuma yow tamit man maa la mag maa la jur buntu kër gi dañ ko ubbi xëccaat ko tëj rocc caabi. ok waaw xam nga dëgg tu as raison en fait man maa génnoon bi ma génnee doon wut soow bu ma sarxe xam nga li ma doon wax. mooy sarax dañ koy fanaanoo loolu kese la mën naa jënd soow saraxe ko su ma xëyee yaa ma dëggal sarax. Atoumane ah, yow kañ nga mës a saraxe. ah maa fàtte bi ma ko dëggalee yaa de cela un mois ci ginnaaw. te souvent ay fàttaliku. waaw baax na. baa ngi kuy sàcc di naan bis boo mandee feeñ. bilaay di xam ne maa la jur bëccëg doxal rek. allo wa say nam na la de yalla xam na ne namm naa la fan yi mom il faut ma ñew set ci la dama fa gej ah, yow kat fan yi danga ma bàyyi yang ci jam bu wa say na la de nga dina la legi si kanam ane aatu kan nga wax aatu maan aatu la taxawoon léegi ah fii la taxawoon xam naa euh, fait man na sa goro Delphine maa fi ñëwoon démb maa jóge Paris ñëw fi woon démb si guddi fi laa nekkoon ak aatu ba ay 5 heures 6 heures yooyu noonu ba presque jàkk ji nodd léegi nag ma fàtte woon sama stage ma ne xaar ma ñëw jël si ka c'est que ma duy ma dama sonn nga rek coono gi quoi moo tax ma fàtte woon sama stage ma ne woon xaar ma ñëw jël si ka ma ñëw fekk la fi mais mois yow heure bii ba tey jullee goo yow maa dafa mel doo julli dee julli de hmm, dee julli kat ci mag hmm, dégg mais yaa ngi miñoon nag da am dag nga ma nduru de xool ma xaar xool la ma wan la. noo ma gisee neex na la de ah <laughs> teel julli dégg di ñaan sama diggante ak Atoumane ndax sëy bi dina am bu ko defee ñu am doom tuddee la ko xam nga loolu xam naa dina la neex amaa ah, maa ngi wax rek xooloo ma <laughs> mais do bàyyi moom bàyyi la ma dem dama sonn coono gi moo ma jàpp ba tey euh, en fait euh, Atou am naa lu ma ko jox mu jox la ko na la ko jox de dafa trian dégg nga waaw ah, maa ngi lay aat su ah, ñëwee nga ne ko ñëwoon naa fi dégg ciao. ilaha illallah muhammad rasulillah sallallahu alayhi suñu borom. waa Souleymane. Mhm. Ibrahima nekkul ci kër gi. waaw yaa fi nekk ginnaaw yàlla yaay kilifa gi. Atoumane laa bëgg nga wax ak moom. lan la Atoumane defati. Atoumane xale bu jigéen bi mu indi ci kër gi mu dugg ci kër gi trois heures di matin ba cinq heures du matin ñuy nodd allahu akbar la fi xale bu jigéen buy génn xam nga ni loolu du dëgg du yoon. du xale bu xees bi xale bu ma tax escalier muy yéeg. xale baangi tatouage yaram ah, bi yëpp mom la mom eh, la heure boobu fi jógee eh basi eh eh, eh at eh, atu nos na de <laughs> allah akbar at non woon eh atu tan na de koku no koku noy na de kooku ni nijaay atu ma ci jotoon lu may wax léegi lo bëgg wax atu da lan da ko ci mere yow nga fa wara war a atu atu gën tànn koo xamante ni kii dégg ni maam bu amoon contane xale bu xees bobu dégg nga tatouage yaram bi ñol ca kaw wat boppam ba mu set xale boobu la. waaw yow kii Souleymane. mu dul Souleymane kan la. yow Souleymane aatu def lu dul yoon ma la koy kalaame ndax yaa fi nekkal Ibou Mbaye ngay naan danga koy félicité ci lu ku lu bon li mu nar a indi. ci yow aat li mu def du yoon yow nga war a tawoo sa doom teg ko fii encouragé ko félicité ko ci li mu def ah seet xale bi nga xamante ni moo gën a xees gën a nooyi xale bi mu yéeg escalier yi man ma sama xel maa ngi tatouage bi mu def ko. ah bi tatouage bi mu def fi rafet na jaamu xale yi ñoy tax sa ruu day dundu bay atumaan mun joyim laay fam man da xale barke salatu faate bu ma ko nga xamni ne maa mën jigen dina jigéen xale bi bu mu yaakaar man man man man man man man de nga ma moy lolu léegi lan moy sa problème ci lolu ma damay gént lo gént am nga dom tan na fa mu wara tané indi ko mol ci bir kër gi lo bëgg léegi da koy da da koy dàq yow Souleymane ku bon do dugg sama kër xam eh, oh. ah, eh, <laughs> eh, nga du dugg ci sama kër kooku jigéen bu bon la yow gis sa bëri baax na yow yow gis nga forme xale bi yow gis nga forme xale bi taay ko kaa xolaa bi yow wax ak yow sax yàq samay wax ah xale boobu baax na de doo demee da ngaa fànq xale bi rek dinaa leen présenté xale bi dama koo xool bay mbëkki escalier ndax xale bu baax Atoumane nijaayam la nijaayam di waa xale bi bu ab sa bu dee loolu nga woon doy moom encouragé rek euh, euh, euh, xale bi moom moom dina téye xale bi normalement sëy ak moom li mu war a sëy moom maa ngi def enterrement dégg nga ma <laughs> ci kanam waaye félicitation waaye waaye foo mën su doo mën <laughs> baax na comme yow mënoo koo régler man dinaa ko lijjantil sama bopp fii ba mu baax baax na maa ngi xaar aatumaan ci kër gi ba mu ñëw dinaa ko lijjanteeg moom Non, Je <laughs> nga sa problème ak man. ci yow en plus forte raison hier je t'ai appelé nga raccroché ma appel ba pour man may def de téléphone ne pas déranger. rien compris. Mm-hmm. en plus ça te fait rire. ah mais j'étais avec Delphine. Delphine ñëw na <laughs> ne ko aéroport ni d'accord yow Delphine nga ma jënd démb moo tax ma lay woo jëloo ma. waaw mais yow Atou ani sa jom. yow Delphine xanaa terewuñ la woon Delphine. kan moo ma tere Delphine. sa gis nga xol buy bëgg du tàggoo te xol lu fa dugg rek dafay dee yàgg fa tas fa dama Delphine dama ko def sama biir xol. donc kep ko xamanteni tay ji da ngay taxaw pour xañ ma sama digënté ak mom ah non non loolu du ko nangu. yow ya gëna xamanteni Delphine du doon sa soxla yow da nga fàtte ni ay jolof jolof ngeen. ba ci lan ba ci nga wara xol digën gu baax go xamanteni dina mengo ak sa ada nga takku ko. te en plus yow Delphine du sa nawlé sa way yow xam nga lan moy nawlé est-ce que xam nga lan moy nawlé nawlé moy nga xol ki nga xamanteni bëgg mo ki nga xamanteni bokku ngeen xalaat bokku ngeen gis-gis dans la vie. kooku mooy sa nawle et puis wa dara ñom dañu am sen xalat am sen cosaan am sen culture fa la bokk certes mais nak dañuy dañuy dund ci monde moderne te il faut ñu and ak aduna bi ni mel et puis Delphine man gisuma dara lu ñaaw ci mom gis nga nit doomu aadama kenn du ko juger ci apparence am kenn du ko juger sax mun naa ci ay kaddom mais da ngay xol jikko ji xol xol bi xol ki ba xam baxna na te man Delphine xol na ba xol xam ne jigen ku baxna ça va, yow juger Delphine man ko bu baax du bon. ok merci ci monde moderne nga may wax ay Delphine dafa baax 50 ok 000. Mais sax sama ci cinquante mais sama cinquante mille. sa oui c'est..? ma bon koy la mais eh attends cinquante mille Tu man maa pas Tu maa vas tu sais ce qu'on va faire yow tu du ma Tu nga may wax. yow da ngay que xam hmm. dangay da ngay dox dox xoolal dama koy jaay ba pare tëkk cent cinquante. fexeel ba sama téléphone na ñëwaat sama loxo. xoolal naara doo ko jot yow dafoo da ngay dof dof yow yàlla ci réew. danga dem entraîner sa tànk yi li nga yoroon yëpp jox nga ko Delphine. Eh. amatoo dara ñeex de seetoo. parlons plus de Delphine. il faut parler de ma femme ma future femme. ay ay kaa bi la wax kaa la bëgg a xam kaa bi damaa taf tafé sol ummi bi ba xawma ci da xana ay gumbay da tak da tak daa sama papa bi capable na nak man ki nga sama papa tukkee mi ndaw yi ma gis boobu léegi muy tukki di dem di jox wax xam daal am lu mu décidé da tak jaare bi lay wax na fi may man duma sa morom la dama laa woo ci fulla pour waxtana kew ka bi la lala kañ nga ba na laa gis fi mbay aatumaa a fi indi xale boo xam ne ci kër gi ma nga rëdd kanam yaram bi yépp ci kaw nag ba ci suuf sol daggit yoo xam ne man xaw ma silib la sol xaw ma lu mu sol xuma ci loolu xale bi naan ma trois heures di matin laa dugg sa kër ak fi laa ba ñu noddu fajar may doog a génn cinq kër di matin dafay fàtte ay chargeur am ak kan la Delphine mooy xale bi jóge Paris. ah yow ah xam nga ko. Delphine waaw naa nañ jokkoo téléphone nii vite fait Paris la nekk xale bu jigéen bu mignon sax bu rafet macha allah. yow yaay seetaan Atoumane muy ànd ak xale yu mel noonu ba di ko indi ci sama biir kër gii na fi mbay. yaay Atoumane ñoo bokk ndey ak baay. mais am na droit tamit mu tànnal boppam ki ka neex mu sëy ak moom n'est-ce yow ak sama papa nag dëgg la daara jolof ngeen juddoo fa ngeen yaroo fa ngeen màggee. nangu nañoo doon ay doomu daara jolof te fier naa man ci doon doomu daara jolof mais da ngeen ñuy comprendre que ñun tamit Dakar la ñu juddoo fi la ñuy yaroo fi lañu ñu màggee lu dëgg il ngeen comprendre ñu benn côté gis nga tànnal nit jabar wala tànnal nit jëkkër loolu peut am na foofu mais fii ñun Dakar xamuñu ko Atoumane engagé wu na ci xale bi de te bëgg na ko te gëm naan dina ko takk xale boobu de du dugg ci sama kër gi Atoumane nag lu ci bañul bañu mako ci ah. sama mbokk daara jollof yi ñew fekk ko fi duñ ma nawlo duma ko nangu tay duma ko nangu ëlëk na dag ma neex nak absalam mbokk daara jollof ak sa digënté ak yalla bu mu gën yalla mo essayer comprendre taman sama yoon wi ma yakal ma daw bay bëgga dé jappal ni yow galé bi tay yow yaay togg na dominiqué bi rër man mi yow kon da du ngeen def bi tay gi togg bi biftek tay ci kër ci galé bi yow ha Ya, ya, Wah, di nga gis yow sama yaramu neen waaw baax na nañ ci dem yow di nga gis sama yaramu neen yow du xam du xam du xam nga ni man defar sama kaasu meew naan ko xëcc sama buntu tëj dara ci man mu ne Nafi Mbaye du morom nga ma bëgg a def waaw baax na reetaan dañ ngaa suuri booy reetaan may fukki Votre série revient après la pub. Ma cosmétique entreprise Bouyes yes a ah jigéen ñi ana cosmétique dikna sen jaxle jaaxle jeex na gàmmu bi lak dëkk bi ba jigéen ñi ci gis ma nga ba cosmétique la bayeko. Gam Fatima bi nak pour teint marron yee ko tax a jóg stabiliser sa teint ba nopi yok sa éclat ou teint ba fo toll di ana yi pour yaram bu cere gaw len muy entreprise maa cosmétique da cosmétique fat yaram bu a ah bu fekkente ni sa kanam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 ouf. <laughs> da dem ba ñëw nii. Ah, waaw wut ko rek. saa gaaw nga doo xaar. waaw ah, mais non toog yii yi may def moom àtte doomu. booy nag wuyu ma baa doola nga nag. mais booy reer nga góor sa nijaay ni ko kaay reer. mais yow toog démb ñoo ñaari reer nga reer booy. non mais man man defuma couche xam nga naan dëdd damay defar mais bi baa moom kiiwu ma booy li nga def couche démb looloo gën a nooy sax cere. loolu. ah booy gis naa la booy. <laughs> booy sa sa ah, mooy booy booy li ki nga reere nooy na de. du loolu gisuma xale bi nga fat da ngay fat xale bi maa ngi sama fële tëdd xale bi mool na de xale baax na non xam nga kooku kooku kooku sama copine la bu pare dafa sori ci man xale baax na de aéroport ñëw sonn ma ne ko doon dem toog kër ga ah, reer reer reer mais nooy na de. fii nga taatu nooy na booy. Ah. mais yu mel noonu boo reeree pare da ngay fëgg ni jaay man itam nga dem ak kaay reer. loolu la waaye rek garaaw yooyu. Oh, eh, non non non ah. yow kooku sama sama lépp la. ko ah, bëgg waaw waaw kooku kooku tonse ko bëgg a ko ci biir kër gi muy sëy wax rek. non mais mais baax na de. wax mais gis nga booy na nga tànn. mën nga doon ci tànn. mais que jéem gën a xale bi mooy tatouage bu nekk fii. ni ma tonton ana. <laughs> mais xool nga xale yi lii la góor dafay baax bët. Ah, mais noonu dafay baax bët. noonu gis nga man daal en tout cas loolu daal mooy sama yéene quoi. Mhm. mais yow xam naa ne bul wax dara. waaw xam naa ne am ku mel noonu jafe na mais dinaa la wutal benn xaritam am benn xaritam tey da ngay soob da ko baax kanam. da ngay soob da ngay soob. non non non loolu da ma. le temps bee baax. ñëw fa. mais wuy ma. waaw. haut-parleur bi mi ngi ci kaw sa dégg naa muy kaas affaire xale beeg yooyu noonu wax waxam yu bëri yooyu. nee naa ko nag saa yi dafa toll ci génération il faut mu jël ci xale yu baax yi. maire bi dama ko wax li ma ko wax eh, ba bàyyi ko ci biir. non bàyyi boo dof dof loo ba bàyyi xale bi barke dama koy round de. non su ma man <laughs> dama dof. dama dama dama li ko seet. dox ñëw dox ñëw dox ñëw. taxawal yow atuman ci suba bi ngay bi nga may romb fi lan la la laaj bima ma laal la buntu kër gi bi ci guddi bi muy yëngatu lan moko ko doon laal lan nga ma wax. la laa la tontu neena dama doon tej buntu kër da ngay fen yow ndekete sa caga nga jël fanaanoog mom bañ nam allahu akbar muy dogo genn di dem ñibi waaw yaay man je ne te permets pas ngay saga Delphine ki nga xamanteni mom la bëgg Delphine dafa jóge aéroport ñëw fi dama ko bàyyi muy fanaan ci mbedd mu wala ci hôtel yi ñu ñëw fii toog di waxtan c'est ça lan lan nga bëgg. waaw parce que bu nekkul won tiaga nekk jigéen ju baax bala nga koo dugal sa néeg di ko fanaanoo di nga ma woo ba ma yee ba ma yeewu nga wax ma ko. yaay man magum jëmm laa je suis majeur et vacciné am naa droit tànn ku ma neex mu doon sama jabar Delphine moom laa tànn te moom laay takk dugal ko ci biir kër gi. wax ko ko. yaay soo bëggee ma jox la crédit wala sama portable nga woo ko man nee naa leen léegi mag laa doonatuma gone man maa jël samay décision bopp Delphine moom laa bëgg te moom laay yaay man nag je te dafa am loo xamante ni war bëgguma ñu àgg ci. yow sama xol bu leen ko laal dama bëgg nga may ma jàmm bay wax ak man nga wàcce sa baat man duma sa moroom te gis nga Atoumane Delphine moom ngay wax bala nga koo takk teg ko ci kër gi dangay ngay jéggi sama néew ba pare doo koo takk dugal ko ci kër. ma décision est déjà prise. waaw baax na dinañ ci dem ba mu neex ma ak yow di nga xam ndax maa la jur wala yaa li ngay ñàkk jom nga mel ni góor gu ñuy dab di ñan amoo benn jom ci sa bopp baa xam nga ni moo daakoon bu keroog ba. oui ma copine t'as ma raison fii la cuisine bi moom j'adore vraiment vraiment vraiment tu sais que man su ma nekkee fële yii daf may manqué moo tax fu ma fu ma su ma toogee rek sama xel dafay nekk Sénégal carrément parce que euh, c'est c'est c'est trop bon quoi c'est trop bon j'aime bien j'adore. ah kon baax na mais nag damaa bëggoon ñu waxtaan. Mhm. jànk. yow ak sa comportement bi nga yaakaar ne famille Atouma dinañ accepter nga sëy si kër gi man maa fay sëy lu neex te yow sax lekk lakk jën moo ñu fi andi lan moo tax nga di saa dugg si débat boobu lekk lakk jën moo ñu fi andi ba tey de waaye dama gis yow nga jël sa yaram bi tatoué ko sa bopp bi nga xuuf te famille Atouma ay jolof jolof piir lañ dañoo respecté seen aadama te yow matin midi soir yaa ngi kër Atoumane dangaa pan kilifa jànk <laughs> ay saxasu su ma ñàkkee kilifa xam naa yow yaa am kilifa ndax fu ma yendoo fanaan nga fa du yaa ngi nii am doom demal nga lijjanti sa bàyyi doom lijjantiwuma sa am doom ngay lijjanti sama fille oh ah, les Absa tey dama bëggoon ñu waxtaan mhm. ci Maguette sama que.. ak ndax woon yi waxtaanee ci seen projet yàgg te ngi yàgg mhm. loolu pour ñu wax ci seen mariage am na Maguette nu mu femme doguma la sax yàlla bu la dee dog waaye gis nga faama sa doom ji aatuma dama ko sax xàmmee ndax aatumaan xale bu jigéen la ma indil fii bu tudd Delphine faama xale bi wow na bët faama xale bi du sol yére bu baax du dox doxin bu baax du wax lu baax jël yaram bi yépp nag bind ko xale bi ci kër gi lay lay fanaan dama waxa waxa waxa wax ba sonn fi mu toll nii damaa toog ci samay bët di leen xool ah Absa Atoumane moom yaa ko yilif wala mu la yilif yaakaar naa ne Atoumane ah, loolu mu ne yilif te bul fàttali may yow dañu ànd di xale dëgg ma dem Hollande di liggéey di ñafe ma dikkee sama benn doom bu jigéen bi ma yàlla may ma may ko aatumaan su ko defee mën a investir ci ñoom mu ma ak yow yëpp waaye boobaag léegi dégguma nga yaakaar naa ne man Atoumane e, yilif la de. femme man xam naa say yéene ci man xam naa ko bu baax ndax ba nga tukkee ba tey sa loxo wàccu ma lu ne yaa ngi ma koy defal mm-hmm. waaye Atoumane moo ma yéenewul moom mi xëy rek forol ma jigéen bu bon indil ko indi ko ci sama biir kër gi mm-hmm. ne moom lay takk man di jaaxle naa waa Absa bu dee li nga ma fi wax yépp wax ngeen ko aatuman te mënoo ci dara mm-hmm. est-ce que doo maam mm-hmm. yi ba léegi naa mu changé femme yow man su ma la waxee damay dem ci maam man fan laay aw femme yow man sama tànk bi musuma koo yëkkati ne maa ngi dem ci sëriñ waaye yàlla baax na la fi maami ba woon jógu fi nan ànd rek xool ba waaw baax na naa topp sa ginnaaw rek baax na yàlla baax na lo nek bayang si jàmm bu nu mu naal de naka yaram bi nak yow lan ngay def sama kër. kan man no, dara eh, dama ñu xol ci atu xolale len rek. yow ñu la sama yóbbante. man yóbbante no Delphine ya, yow neena man bëgguma la gis ci sama kër gi. waaw. yow ya, bëgguma la samay mbokk bëgguñu la te mënoo fexé fexé fexé ba baat, ba aatumaan tak la nga dugg ci kër gi la la bëgg nga bu te génn sama kër ci biti xam nga ni bordel bu melni yow caga bu melni yow sama dom dula tak dila duggal ci sama biir kër yow bordel bu bon bi xam nga lan la bëgg nga romb sama barang, bi génn sama kër ci biti yow man nga romb ku xol sa colin gi sax bordel nga ci biti ku la xool xam ne caga bu mag nga <laughs> eh eh kaay kaay jël jëlal jëlal bordel bu bon man xam nga ni ku mel ne yow soxlaw ko ci sama kër gi caga bu bon bi nga doon bon ba bëgg de